jaajëfal bu baax a baax waa Dollima ñoom bokk nañ itam ci sponsor yi ñuy gunge euh, je pense que am nañ beneen bu bees muy sow piir bi euh, les cahiers sans sucre bi euh, ñu koy def di def aussi yeneen ni mbir mais Mame Biram Diouf da koo ibbi góor ci ay góox yu am solo doo ko indi ci plateau li may mun a njaay doon wax am naa ci firnde tey Souleymane xaw ma kan mooy yow xalpulaar nga séeréer bi tey dafa ibbi soow bi naan ko doog koo teg ci plateau bi maa mbiram Diouf yaa def loolu jërëjëf sa liggéey rafet na merci également à Dolima pour la confiance aywa euh, ñu dem Chérif ci waxtaan bi ak euh, monsieur le maire Aliou Ndoye euh, sànq Souleymane nga koy laaj mbaa nelaw nga y a de quoi quand laaj ko boobu question puisque nag quand même Dakar Plateau gis nañu ne ñaari fan yi euh, journaux yi ku nekk yaa ngi titre na la nam la safee dégg gis naa fi sax démb intifada mu mel ne <laughs> jaaroo jaarootuñu taal wala boog pour l'instant euh, déggoo amagul diggante euh, agent wu mairie bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy marchand ambulant yi chérif xëy na nelaw na parce que am na formation militaire Souleymane nañ ko xam nga ñoom enfant de tour bi dañuy solidaire quoi <laughs> c'est l'ancien waaw monsieur le maire ginnaaw bi ñu wax nga Fatou wax na ko muy Dakar Plateau déguerpissement yi dafa jur coow ah, ginnaaw Colobane démb aussi fa la nga xam ne ak bërki démb Moussa commune hmm. coow am na fa ba jàppante am fi déjà état est-ce que amut ay blessé loolu la njëkk laaj ci jàppante yi si man am naa ay agent yu ñu blessé maa ngi leen di nuyu di leen gërëm vraiment ci li ngeen ma dalal fii euh, wax ci lu lu gaaw euh, ñëpp a ngi bind déguerpissement Dakar Plateau en fait nu sommes dans une phase de suivi déguerpissement yi amoon na ba pare ci phase suivi la ñu am boo xam ne loolu wareef la boo xam ne dañ ko teg ci loosu mairie pour mu assurer de parce que police mënul vraiment aussi voilà di def yenn yi euh, c'est vrai que dafa war a ànd ak régulièrement les forces de l'ordre kon sa première question ndax am naa ci ay blessé waaw euh, des blessés parfois graves Euh, mmh. notamment ki ci gën a grave c'est une dame boo xam ne nit dafa jël brique dóor ko ko. Hmm. Euh, voilà arraché ay ay boucle d'oreille am arraché cetera donc euh, yooyu moo tax démb ma ne euh, je ne peux pas l' accepter gis naa ñu ñuy wax ni situation bi la mais situation bi man su suis maire ça fait un bon moment maa ngi dégg nit ñi naan boobu ba léegi dama ko muñ déedéet euh, man bi ma nekkee maire ci li ñu jàpp ni dafa politique régime bi ma bokkoon bi fi jógee man maay le premier maire Sénégal bi ñu yóbbu sûreté urbaine pour ay problème de désencombrement ngeen koy fàttaliku. donc bu nit ñi naan léegi la dee moi j' assume toujours mais wax ni encore une fois dégg naa aussi le ministre de l' intérieur moo jiite les Euh, nee na il ne s'adresse pas au maire mais je suis désolé il s'agit il s'agit de savoir lire c'est vrai sa circulaire s'adresse au gouverneur mais il demande au gouverneur de prendre contact avec les collectivités les présidents de département et de mairie et c'est sur la base de cette circulaire aussi la ñu toog autour du préfet sur une convocation qui est là. Mmh. ñu mmh. définir li ñuy def yëpp. c'était le 12 juin convocation préfet bi ah. oui mais la circulaire c'est le 7 mai. Mmh. donc le temps mu wàcc préfet ba mu jël ndogal yooyu. et loolu c'était pas que les maires c'était les différents services yu mën a am rôle ba ci Ageroute ci gestion tali yeeg et cetera euh, fi ñu toll nii mooy il faut savoir assumer les choses euh, qui consiste à dire que ni li ñuy def yoon la wala du yoon. non man xam nga duma ma dama la wax fi mu jógee. Mm-hmm. ci wàllu euh, en tout cas dëgg maanaam euh, yoon. Mm-hmm. mais man maire dama ko dama ko doon sàkku. Mm-hmm. man gouverneur Dakar dama ko doon sàkku parce que dama jiite ay askan aussi. c'est-à-dire que euh, loo gis rek da nga koy muñ ba fi nga xam ne mooy limite bi. yaa ngi wax sans problème densité population bi fii hypertrophie bi Dakar di dund. c'est vrai causes yi bëri na sore nañu sax souvent. mais yow xam nga ni le plateau lu dul euh, gore jàpp naa ni superficie moo fi gën a tuuti. tey loolu ngay wax noonu densité boobu quotidiennement man ay plus d'un million et quelques de sénégalais ñoo nekk ci sama commune bu ndaw boobu. loolu nag dafa laaj organisation. parce que dafa laaj ay wàllu sécurité ak lépp. maa ngi doon wax démb que ni maa ngi gis image yi ngeen joxe ci samay tali. oui avant image sax gis nga convocation. bi préfet bu Dakar dafa ngi nii ak destinataire sous préfet jot na ci maire ville de Dakar commune yow sa commune. directeur général. mais réunion yi ñu man mii maa toog. Mhm. sama agent voyé sama division recette maa toog parce que d' abord euh, man leen ko wax il faut nit ñi xam euh, damay daan sama doole waaw mais euh, loo gis rek bul ko xëcc ba mu dagg. c'est-à-dire dafa am population boo mhm. xam ne tey c'est le trop plein. Mhm. sëñ bi mënoo dëkk fenn amoo feneen. Euh, yenn saay boo amee néew ci biir kër sax pour nga génne ko da koy gàddu yooyu dund nañ ko fi man mi maire mhm. bu ñu may sanctionné tey ci loolu lañ may sanctionné ci cadre de vie bi lañ may sanctionné te muñ naa ko dem naa fi plusieurs élections muñ ko di expliquer à euh, yi mhm. je suis certainement le maire aujourd'hui qui met sur la table qui fait des efforts en tout cas gisuguma beneen communauté bu koy def collectivité territoriale bu koy def amul amul amul amul synergie d'action au niveau des communes bu mu mel ni yow non xam nga synergie d'action man et loolu aussi il faut nit ñuy xool ko parce que hmm. le territoire sénégalais est un hmm. indivisible voilà lu lu lu lu laal fii rek dana am répercussion feneen euh, aujourd'hui euh, il faut que l'État moo tax te démb dama ne dañu continuer le suivi parce que sa mission la hmm. dama koy assumer mu neex mu na dama koy assumer ba keroog ñu tegal ma ne ma arrêtel parce que lii ak lii ak lii mais loolu bu amul bu dee lii dañ ma ko sant dañ ma ko sant assuré ma aussi damay am l' de la sécurité. te yëf commencé wul euh, commencé wul ci ci ci ci jamono yi lu yàgg la am na processus. Hmm. waxtaan ngeen est-ce que def ngeen mise en demeure est-ce que essayé ngeen trouver solution. avant d'en arriver à cet texte. gis nga li ngeen publier fii sànq loolu bi ma génnee ci réunion boobu. Hmm. ci ci liñ ma laajoon la aussi euh, communication bi. bokkoon na ci sama euh, mission aussi dama euh, xale yi ngay gis ñi ci ëpp pendant deux semaine quasiment liggéeyuñu dañu wër mbedd place yeeg yëpp di dem di wax ak nit ñi directement xale yi ñuy présenter actuellement comme des je sais pas moi des des des illégaux là alors que ñoom mhm. c'est des agents municipaux payés par le ñun dañ ci boole yërmande bi ne non kii nit boo ko génnee une semaine wala machin avant la tabaski mooy bon day metti ci moom mhm. la après la tabaski mhm. kii bii dama la ne donc waroon nañ ko def avant nañ bàyyi ba tabaski bi romb d'abord dama leen ne mooy gën a yomb ci ñun sax pourquoi parce que dëkk bi circula xam nga désencombré da nga baare circulation danga nga et cetera désagrément yi day bëri loolu ñu d'accord ci ñu wax ci acteurs yi mën na leen dem leen ngeen wax seen i mini seen ñi ànd ak yéen ñu jël seen bagage pour ñu bañ a yàqule ñun bu ñuy désencombré fekk ñu fa bagage lu ñu fa jële ay mooy mallette palette yooyu ñu def en table et cetera loolu la fa jële déggoo kenn ku la ne désencombre jël nañ sam bagage Petersen dañ ko defar désencombre ba mu jeex kenn ku la ne jëlal nañ ma fa benn kawas et cetera rond bi nga xam ne coo am na mais foofu du woon marché mooy Sandaga <laughs> Sandaga ci boppam depuis bu ma juumul 2015 lañ ko yóbbu chande de course tabaxal leen lu fu ñu nekk yow nag bu ñu la tabaxalee fenn nga ne noo fii man bëgguma ko parce que du ma fi gis nit dafa wéet xaarandil ba ñu jox la leneen à mais yow sax man damay jël fii teg fi sama rak wala sama nangam et cetera ñëw ci rond boo xam ne avant bu ngeen daan lal ci ay fête da ngeen daan ñëw ci man maire. Mhm. ñaan ma autorisation pour 24 heures 72 heures def fa seeni i tente yu yu weex da ngeen koy fàttaliku. loolu lépp ma koy ma koy autorisé. Mhm. kon foofu du marché. tey mënoon naa comprendre ay coo am feneen mais rond boobu du marché. kuy dakaar oo xam ne ko image yi ngeen di wane ne woon xam muy mbedd centre ville de la capitale du Sénégal ça. Mhm. ay Kigali machin parce que. à un moment donné, il faut que l'autorité s'exerce aussi. Ouais. Ça, ce n'est pas vivable, ce n'est pas viable. Mm. Et bientôt, Dakar mu ngi am ay ambition recevoir yenn organisation internationale yu mel na ay JOJ xam nga ne du ci leen lañ koy defee. mais au regard de ce qui s'est passé euh, à, mm-hmm. euh, ak euh, li ak ci dégg li yëpp. Euh, deux questions benn bi est-ce que c'était le bon timing. pour faire li ngeen def lii et deuxièmement les moyens c'est-à-dire ñëpp gis nañ risque bi nga xam ne moo am ci déguerpir mm. engagé euh, des quoique des fonctionnaires euh, de, de, de, de la fonction publique locale euh, mais des civils quand même euh, et ne pas requérir euh, la force publique pour def opération bi est-ce que loolu tamit on le fait jamais sans requérir la force publique ah ok bi encore une fois mhm. écoutez bu déggu leen ci coow dañu désencombrer ba mu parce qu'il y avait les forces nécessaires pour cela mm. je vous dis là on est dans une phase de suivi dañuy jaawale ñaar yi quoi mm. parce que coow am na ñu ne ñu ngi désencombré non c' est vrai yow bu ñu la désencombré nga ne waroo fi lalaat nga ne damay ñëwaat lalaat par force loolu mooy coow lii. Mm-hmm. rond point boobu da nga gisoo leen fa saa ñu dee xale yi bu ñu ñëwee table yooyu la ñu jël ñu naan dañuy yàq suñu bagage saabu yooyu la ñu toj d' abord c' un problème de volume toj ko pour mën yé dugal ci ay ay ay loolu la ñuy toj donc foofu dañ ko désencombré ba pare avec les forces de l'ordre avec la SONAGED ak tous ces gens étaient sur place. di nettoyer di añ ay mbalit. Mm-hmm. vous savez li ñu njëkk yóbbu c'est plus de quatre-vingt-dix véhicules. Mm-hmm. et qui appartiennent quasiment à l'État. Mm-hmm. ku xam Dakar Plateau tuuti. yoon bi doon dem ci morgue principale. lépp lu ñu defoon ay dépotoir départ. ci même premier guddi bi. loolu njëkk image waa ci premier guddi bi loolu njëkk lañ lañ fa njëkk jëlee. kon daf ci état la njëkk dal. actuellement désencombrement bi continuer ay ay yu mel na société Lonase le DG voilà c'est c'est vraiment cette rue là totalement la plupart mhm. de ces véhicules appartiennent à l'État on les a mhm. pris yóbbu ko fourrière yenn mhm. en présence du sous-préfet qui a coordonné ces opérations j'étais même pas ici j'étais de l'autre côté toute la nuit là donc on l'a fait en toute intelligence mais en toute responsabilité et pas dans le dos des gens comme on veut le faire mais est-ce que solidarité état central bi mu ngi fi ba léegi est moo tax démb ma ne parce que nag l'administration aussi elle est écrite mm-hmm. démb dama ne man ma génne ci réunion yu mel nii ba ñu tëral na ma yow lii mooy sa wareef kii lii mooy wareefam ñenn ñi def seen wareef man damaa wareef sama wareef parce que chaque fois on reproche mm-hmm. aux collectivités territoriales de ne pas la le suivi mm-hmm. parce que xam nga des encombrements du tey yàgg na fay am mais dañuy suivi bi lu ñu ko def mais suivi bi lu tax lu koy gàllankoor souvent mooy ñi koy def parfois dañu ñëw di ko def au lieu que police par exemple jàppale leen parfois police ñoom lay démb par exemple police agent yi la fa jëlee parce que dañu jàpp ni mën nañ créer ay troupe c'est une façon aussi de les protéger je le dis aux agents pour les calmer mmh. c'est une façon aussi de les protéger parce que c'est leur mission mmh. je le leur dis aussi mais ce suivi là moom la ñuy raté chaque fois mmh. donc c'est rebelote Mhm. Parce que les, les acteurs aussi sont intelligents. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de mettre les autorités les unes contre les autres. Mhm. En, en, en, en n'ayant les oui, de la politique. On entend, on entend que vous êtes maintenant de L'administration centrale, elle n'est pas, faite pour être dans les radios et les télés. Mhm. Vous le savez ça. Un homme de voilà, un homme de euh, sauf autorisation, c'est pas des gens qui sont voilà, ils gardent le, le secret, ils sont dans leur mission. ñun ñoo moo tax ñun ngeen di dégg il faut qu'on l'assume aussi souvent duñ ko assumer pour des considérations politiques man bu dee politique la lii lan laa ciy gagné. loolu mais le ministre de l' bi muy recevoir bi premier ministre di recevoir waa Colobane yi. Mm-hmm. jox na exemple bi mu ne circulaire bi c' pas destiné à mais ça pour moi c' mais nee na yokk na ci ne. Mm-hmm. pourquoi pas à Rufisque y' a problème parce que foofu c' est le préfet moo moo fi am problème parce que kon dafa bëgg wax ni. yéen nga man problème amuloon problème Colobane la amoon. Hmm. Et on a tout de suite voulu dire que c'est des maires de l'opposition, etc. Mmh. Malheureusement, pour ceux qui disaient toutes ces communes sont des communes de Yéwi. Mmh. Peut-être que je fais exception. Mmh. Malheureusement, parce que Kermassar, c'est pas l'opposition. Euh. N'est-ce pas Koloban Bob c'est un maire Yéwi. Hein? Peut-être que Taïtien Bir, <laughs> mais c'est un maire élu Yéwi. C'est pas, pas nous. Euh, nous, on te dit, commune, le pas de droit, etc. Donc, c'est en exécution de cette circulaire-là, où nous sommes interpellés dans cette circulaire, où hmm. le gouverneur s'adresse à son préfet, parce qu'il ne peut pas s'adresser à nous, le préfet s'adresse aux villes et sous-préfets s'adressent aux communes. Hmm. Et on a, a tenu cette euh, programmation, les mm de mise en œuvre des opérations de désencombrement dans ma commune. Hmm. Mais du ma daw responsabilité. këyit moo la ko donc pour nga arrêter ko malgré tout ce que j'ai mis sur la table. Mm -hmm. C'est difficile pour moi. Je suis une commune. Euh, Aujourd'hui, une bonne partie de ma population me reproche mm -hmm. de mhm. prendre autant de milliards pour ces acteurs. Tout ce qu'ils ne savent pas. Et je fais l'effort. Mm -hmm. Parce que je dis, nous sommes le Sénégal, nous sommes tous. Wolof la, Wolof la, ah, monsieur le maire. maa ngi jégalu <laughs> maa ngi ci loolu. Mhm. Euh, parce que jàpp naa ni Sénégal benn la. te damay wax toujours boo bu nit ñi xëyee. dama naan suñu maamee ñu tooñ kat. Mhm. parce que seen ñaana a nangu. Mhm. waaw bu nit ñi xëyee am yaakaar di ñëw ci ñun war nañu xool nan la ñu garder loolu maay nag organiser ko. Mhm. pas dans le désordre. ñun ñëpp ay jullit la ñu day leen màkk. waaye du caagin boo fa demee nga def la neex. mais mais y a une rencontre bu ñu annoncé woon entre le sous-préfet de Dakar Plateau. ak ambulant yi normalement. Euh, maire war na ca bokk noo waaw mais démb heure bi euh, maa ngi ciy jégalu daal si sous-préfet parce que bi message. Euh, heure bi dafa fekkoon man woote woon naa benn point de presse bi lu dëgg euh, loolu moo waroon euh, ma ma noonu mais pour man bu fa nekkee moom c'est toujours l'administration moo ko wootee danaa xam li fa génn mm. parce que aussi on peut rien faire par les communes maa ngi dégg souvent nit ñi di wax ay wax yi damay fàttali les communes mm-hmm. s'administrent librement damay fàttali au Sénégal parce que damay dégg wax yooyu c'est pour que ñu mettre ko de côté. maire de centre ville ñu xàll ko mu yaatu mm. doo gis oto mm. foo taxaw ñu saboo la euh, war na la da ngaa war a tegu ci code mais après day amaat benn voilà lâcher du lest day amaat un peu dañuy dañuy sombré waat encore ci li ñu nekkoon ci responsabilité maire yi sax ah. parce que ñii aussi dañuy fay ay pataat non wax la gars yi dinañ di luyee cantine ak yéen te ñoom sabo mbirum sabo moom duñ ci bàyyi kenn moom <laughs> gars dañuy wax lu leen lu leen soob rek bu ñu soxla dara mm. mais mais mais je bu ma jëlee Petersen maa ngi leen la xam nga Petersen. Mhm. ay pàcc la. Petersen par définition du marché. Mhm. c'est une gare. Mhm. d'accord mais fu gare am fu mbooloo am. gars yi yenn seen bagage yow dem na ba doon marché. ñu naan Petersen intérieur. UGT peu ay gare routière et cetera ñu naan euh, Petersen euh, rond-point beeg euh, et cetera. ñu naan la Al-Qaïda qui un terrain dégg naa ci ay coow lu bëri terrain boobu. Euh, du ma ci dugg dans le détail mhm. mais c'est en bon droit que je suis là-bas foofu laa demoon di booj ay loxo nit ci seen i intérêt mhm. pour tabax fa ay cantine pour di leen fa dugal cantine yi fonctionnel nañu parce que dafa mel ni daf ci am yu nga xam ne euh, ubbeeguñu ñu non xam nga xam nga gis nga marché boo demee ba am genre contentieux mhm. euh, de deux choses da ngay résilier totalement marché bi ba yoon jox la dëgg nga jële fa nit ki nga def sa constat huissier fa mu toll parce que keneen bu koy eggali dafa am fu mu war a départ am fa mu continuer ok euh, loolu ñuy wax ñu pare na sax actuellement boo demoon loolu ñu naan pare na mm. entreprise loolu lay àggali actuellement loolu lay àggali entreprise boobu pour ex considération def na peut-être résilier ñu marché bi on mm-hmm. aurait dû peut-être le faire depuis parce que entreprise elle est défaillante mm-hmm. elle n'ose pas dire le contraire elle est xam nga liggéeyal ma fay la loolu yomb na ci euh, souvent nag ñun ñu naan nañu jàppale entreprise sénégalaise ñu ci bëri ñoom parfois nag ñu yóbbee ñu ci lii te loolu aussi il faut que le patronat tout ça ñu xalaat ci loolu waaw mais suivi bi nag ñu ko naral nuñ ko fas non suivi mooy gàllankoor bi xam nga lu mooy li ngeen ma wax ni da naan euh, agent yi nga ne même si c'est des fonctionnaires euh, de la de la fonction publique locale mais c'est quand même des civils il faut avoir les forces de l'ordre et c'est ce jeu waaw vous montrez là ça c'est ci c'est-à-dire c'est à trente mètres euh, cinquante de la, du rond-point de Sandaga mm. c'est toutes nos rues qui sont comme ça donc ce suivi là aujourd'hui moom la ñuy def ci phase boobu da réussir wala comme ni coow e c'est la stratégie des acteurs on mais les autorités les unes les unes contre les autres s'il y a une partie qui n'assume pas parce que <laughs> voilà il ne veut pas faire face à, à cette clameur et assumer en disant que lii lañu ñu war a def te lii mooy évolution bi. état central moo assumé woon. non je veux dire man lii bu ñu ko assumer ñu eggali ko. c'est pas compliqué mais est-ce que force euh, la, la force c'est la solution parce que. Mm. non c'est pas une question de force. Mm. moi je mais gis nañ image yi on a vu. Euh, des des agents quand même di échanger ay projectiles ak euh, ñi doon. manifester mais xam nga ñoom dégg nañ la démb aussi ci conférence de presse bi un moment je pense que xol bi jóg na tuuti. Mm. parce que on a entendu des appels. même bu dul yow sax am na ay des gens appelé à la mobilisation. mais c'est en train de se faire malheureusement. Et je l'ai dit hier ah, à l'officier de police ça, qui était ça, là. Ah, que dangereux. C'est en train de parce que fii dafa am ñu fi dëkk ah. mënoo xalaat da nga ñëw ëpp ñu fi dëkk. en terme de nombre yor. Mm-hmm. mënoo ko xalaat ñooñu ñuy xeexal ci kër yi lañ génn yor seen i mag seen i rak seen i nijaay seen i baay il faut ñu sóoraale loolu. mënoo wax ni chaque fois yow da ngay imposer naan fii kenn du ma fi jële lii est-ce que est-ce que marché la li ngeen di gis nii lii ana trottoir ana fi. le problème de circulation au plateau c'est que plus de quasiment 30 pour cent de nos voiries est soustraite à la circulation xam nga da nga waxi stationnement fii tali oto du fi jaar xoolal rek te lii ndiggu Ndakaaru la en plein centre ville ay nit dëkk fi ay nit yor fi seen commerce day gàllankoor commerçant ya am ah. commerçant bu am boutique son premier réflexe bu ubbee mooy génne la maximum de boutique ci buntu boutique booy dal ci kaw mu ne la moo ko deful ay ambulant ñëw def ko sama kanam du ma jaay ah léegi luy solution monsieur le maire. comme ñoom bëgg nañu waxtaan structurel bëgg nañu waxtaan ñoom. mais waxtaan bi waxtaan bi aussi continuer dans l'illégalité ou dans l'anarchie mënul nekk lan ngeen leen di proposer en contre contrepartie jóge leen fii fan ngeen leen bëgg yóbbu wala lan mooy solution. man coow li ma am structurel pour vraiment mettre fin à cette tension. coow li ma am. Mm-hmm. Sandaga boobu ngeen di wax. Mm-hmm. acteurs yi fa nekkoon dañ leen déloger l'état central. Mm-hmm. du ñun commune de moo tëj marché bi. tabax champ de course dugal leen foofu kon foofu xam nga bu dee solution la jot solution bi teg nañ ko ci table mais boo naree def loolu ñeneen ñëw occupé pour newaat la jox ma foofu foo jëm c'est-à-dire qu'il y aura jamais de solution il jamais Petersen ñiy féete woon ay berteg yooyu berte jële leen fa man de parce que man et je l'ai reproché à l'époque à ce gens ils ne m'ont ils n'ont jamais fait de moi acteur de ces négociations et je suis le maire de la commune xam nga nit ñi dañuy former affaire opposition pouvoir j'étais dans le pouvoir dama ko doon voilà dama ko doon ñaawlu fi ma koo war a ñaawlu mais BRT avec mhm. avec les conditions de la Banque mondiale bi ko financé mhm. avait recensé tous ces gens les a indemnisés c'est la réponse officielle que j'ai mhm. du ma ko inventé parce que fekkewu ma ko woon ont été indemnisés ba ñenn ñi centre commercial bi Khalifa Sall tabaxoon Félix Éboué pour Petersen dem dugg foofu à l'époque dañ ko recensé ñoom ñoo fa waroon ñëpp dañ ko bañoon léegi am na ñoo xam ne CETUD jëndal nañ leen fa ay place ñu moomal ko seen bopp j'espère que encore duñu ñooñu du ñu jaay loolu mm-hmm. delluwaat ci mbedd bi parce que c'est possible donc dama jàpp ni Peterson ña Peterson mm-hmm. mooy ñi nekkoon mooy ñi taxoon taxoon tax may tabax cantine mm-hmm. te ñoo nag ay la yowoon fii je le je leur rends hommage y en a pas un je dis y en a pas un qui a eu à nous opposer une résistance moo waral dem ma ne c'est eux mes interlocuteurs parce que man yàlla peut-être dama am défaut boobu. man dañuy waxtaan mais man boo ma imposé ñàkk ak am laa yemle parce que man yàlla laa gëm. Mhm. ñooñu boo déggee dem ma wax ni ñoom dong ñooy samay interlocuteur parce ci wàllu Petersen ñoom ñoo fa des. ñoom laay gérer. Mhm. Sandaga li may def le marché Sandaga c'est neuf milliards chef. Mhm. à prendre dans un budget d'une collectivité territoriale. ta a moi j'ai quatorze quartiers imaginez ce que je peux faire dans ces quartiers avec ça mais dignitaires mes imams mes chefs de quartier que ça aussi ça fait partie en tout cas de ce qui agrandit cette euh, cette commune là donc ñu ngi def investissement boobu ñu ci marché bi nga xam ne ñee dañu leen yóbboon champ de course war leen dellu si dañ ci yokk un immeuble pour yaatal mm-hmm. donc ñun ñu ngi ci liggéey boobu mm-hmm. marché Sandaga boobu ñu waroon defaraat fan la liggéey ah macha allah bu ngeen bëggee mën naa leen fa defal benn Euh, visite porte ouverte. Mmh. Mmh. guisée. Mmh. parce que personnellement je suis très content de la qualité de ce qui est en train d'être fait là-bas. Sandaga boo gisee euh, xaraboon nañ ma ci lu tax ñu toj ko. coono woon oui on avait fait des études techniques. réhabilité ko woon moo gënoon ci man. moo euh, ça allait moins cher d'habitude la réhabilitation peut être plus chère mais ça allait moins cher pour moi par rapport à ce que je suis en train administratif kay. mu ne bu mu mel ni building administratif la. waaw a seet tabaxaat bi. <laughs> tabaxaat bi xam nga lu mu ñu permettre. Mhm. foofu ci suuf yëpp parking la te xam ngeen ni. stationnement bi ngeen naa cee ñëw sax ci stationnement waaw 9h16 nañ ñëw ci station. stationnement yi avant parking boobu li muy defar nii kay parking boobu yëpp station ci suuf. Euh, tout le gros œuvre déjà xaw nañu am tuuti retard war na hmm. jeex. avril bii ñu song gros œuvre c' est un marché de 24 mois normalement année prochaine war nañ ci génn du dëgg donc loolu parking la donc normalement bu ñu paree loolu mhm. doo ñëwati foofu ci Lamine Gueye machin nga naan damay dem marché damay gaari tali mu mhm. dugg sa parking boo paree ngay def nga génnaat immeuble bi à côté aussi mhm. c' est pareil maanaam le centre commercial yaa ngi sa parking ci suuf yaa ngi ak say monte charge on l'a extrêmement modernisé tout en gardant origine de, du marché le marché en tant que tel. Mhm. loolu la ñuy garder. léegi ci stationnement parce que amoon na coow aussi pour surtout place de l' indépendance. Mhm. amoon projet moom dafa mel ni lépp tàbbi na géej mais euh, da nit ku fa taxaw sax da nga gis ñooy ñëw. xaaral boo paree. bon laaj la dara. léegi maay maire plateau. waaw ah. ku yor stationnement foofu xam nga maa la ko jox. waaw ci commune bi. Mm. bu ñëwee dañ nekk ci yoon. dama ne sénégalais bu ñu def loolu foofu bañal. doo fay dara. parce que no attendez. mais monsieur le maire dañuy teg seen ay ay bouteilles yoo xam ne. non ma ñëw nag ma ñëw ma expliquer la. la place en tant que telle c'est un nombre de places très limité. la difficulté que nous avions c'est que nous avons là-bas dañ fa am ay institutions yu am solo. Mm-hmm. oui notamment le système bancaire. Mm-hmm. boo xam ne bu boo ñëw banque. soxla nañ pour seen client. Mm. donc place yooyu fa nekk yëpp SDIH euh, moo géré tout l'immeuble bu mag boobu. Mm. moo koy fay ak les banques. ñoo koy fay donc c'est des choses déjà payées à la commune ñun soxla ñu waat amaat fa dërëm le reste là maintenant c'est xëy na gardien bu ñu teg foofu bu ñëwee mu ne la bàyyil sa caabi mu teg fi euh, wala teg fi bouteille bàyyil sa caabi pourquoi bàyyi fa caabi parce que bu borom ñëwee dafa war a bouger soxla et renseignez na sénégalais renseigné auprès du commissariat central am na ñu bëri seen i oto noonu lañ ko sàcce hmm. loolu man fekkee naa ko central du dëgg donc <coughs> foofu loolu mooy pàcc bi déjà ministère des affaires étrangères maa ngi leen doon tooñ man ne yenn yi gàllankoor yi ma fa am souvent c'est l'état te voilà li état di jël mhm. li police di jël li chambre de commerce di jël et cetera presque place ba jeex donc loolu moo fa am très bien mais projet parti sotoraay moom waxatu leen ko quoi non loolu xam nga man la woon ak ville mais principalement man mhm. c'est que bëgguma dugg ci seen considération yi tey euh, le projet de A à Z mhm. euh, dama ko def pare mais après y a eu les histoires politiques bu fësee. Mhm. voilà je passe à autre chose. juste une dernière question ci oui, parking bi parce que. Mhm. li ñu gis comme tendance. moom mooy ay borom terrain nu yu bëri biir plateau. Mhm. di louer espace bi. oui yéen na ngeen di liggéey ak ñooñu. Euh, loolu c'est une tendance à encourager. c'est pas une tendance à encourager parce que c'est un détournement d'objectif. ba pare ñëw di empiéter sur des prérogatives de la commune. ma ci saluer le. bëri na fa trop ma ci saluer le sous-préfet du plateau qui m'a régulièrement dit mais ces gens il faut les taxer parce que mënoo def une activité économique te dara fekku la ci. Hmm. et ce qu'ils sont en train de faire avec un détournement et ils n'ont même pas amuñu sax euh, minimum de respect de la loi mooy ñu am ay clôtures décentes. Hmm. parce que loolu aussi c'est une obligation il faut que propriétaire xam ko il faut que ñuy def ay clôtures murées normales boo nekkee en centre-ville. loolu dañ commencé nañ ci on les a tous recensés. Hmm. te danañ ci jóg incha allah. léegi ci autorisation de construire parce que Anse Bernard premier ministre demoon na fa il y jours constaté gis li nga xamante ni mooy littoral bi. Hmm. surtout partie est bi mu concerné na sa commune. loolu aussi noo leen gisee li nga xamante ni mooy spoliation bi fa am sur le plan foncier ba nga xamante ni askan wi mënut ñoo jot sax ci li nga xamante ni mooy plage. loolu aussi maa ngi xaar ba gis ko. Hmm. gis lan. mais je veux dire liñ fa joxe. yëgoo non xam nga man coow lii coow Anse Bernard. Hmm. c'était en mille 2020. waaw 2020 lañ ne woon Anse Bernard jox nañ ko benn sud africain. Hmm. xaw ma ndax ngeen koy fàtte. waaw waaw may maire samay association jóg interpelle ma ci woon dara ma laajte amuloon c'est que un cabinet d'architecte euh, a fait son projet c'était dans son site xam nga gars bu ñu ñëw di la laaj dara ils viennent avec un projet hmm. dafa def projet def ko dans son site ñu euh, et cetera nit ñi génn projet boobu ne jaaye nañ ko à ces gens lii la ñuy def en permanence man réponse officielle boobu laa amoon après. moo tax déggaatu leen ma ci. Mhm. maa ngi soog a déggaat lii. je vous partagerai si c'est possible euh, un projet que j'avais fait à la suite de ces incidents. Mmh. pour réaménager la planche la, euh, la, cette plage là en permanence un très beau projet. Mhm. mais li ko gàllankoor mooy il fallait ma xaar ñu euh, renforcer d'abord corniche bi ba corniche baa ngi doon dem. boo su rombee ans gis nga travaux yi ñu fa def. Hmm. AGEROUTE moo ko def. et cetera ko jiitu gis ngeen travaux donc il fallait le renforcer. on a aussi un problème d'arrivée dans certains endroits. Hmm. ay réseaux d'évacuation d'eau usée donc il fallait ñu xool lool et il y avait le projet WACA. bi nga xam ne war noon def des travaux de confort euh, de en tout cas de renforcement de tout cette corniche là loolu moo xam ma tegandi projet boobu. yow joxe woo fa tamit autorisation de construire pour kenn. parce que ah. premier ministre am na ay fonctionnaires sax yu yu pàccoo suuf si profité ne xam ni nguur gi day waaj a jeex ban aaki moo <laughs> ko. juste euh, euh, autorisation de construire xam nga autorisation construire nu muy demee. Hmm. maire bi c'est la c'est mooy dernière roue bi moo hmm. mais mooy dernière roue bi. maanaam ñi koy instruire c'est l'urbanisme d'ailleurs dama leen di tooñ toujours ne da ngeen détourner loi bi parce que normalement dañu war a déposer la demande à la mairie mm-hmm. te mairie moo war ko joxe mais tey parce que dañ ko digitaliser dépose service d'urbanisme régional ñooy def traitement bi yëpp pour jël les différents avis protection civile euh, et cetera bu lépp yembee ñu ne mu ngi mu ngi signature maire mais bu gis dossier ba léegi de c'est au niveau de la plateforme ADIE nga koy gis. Hmm. maintenant pourquoi je moo tax ma ne maa ngi xaar di gis parce que parfois euh, si mes services ne font pas bien le job. Hmm. on vous dit le TF 6000 nangam et cetera duñu la jox sax adresse bi. boo deful correctement sa liggéey man ah, nga jub en tant maire hmm. moo waroon d'ailleurs li ñu indi permis de construire au niveau des communes ñu trouvé woon c'est bonne chose parce que la ville n'avez pas le temps de bien maîtriser les différentes zones. Mm. Mm. moo tax je peux pas être affirmatif mais li ma gëm mooy fii joxewuma fi titre euh, permis mais je peux pas être 100 pour cent affirmatif. parce que mën naa jub. Mm. Fatou ñu politique tuuti rek 100 jours yi di leen ak wax ci PS question bu yàgg deux questions voilà 100 jours yi deux questions politiques rek. moom dañoo bëgg dañoo bëgg laax de. non ñun <laughs> le maire Chérif ci boppam moo doy waar. <laughs> c'est la time keeper. Ah. <laughs> mais il faut ñu wax ci. 100 jours yi doxalinu nguur gu bees gi gis-gis nga si am. loolu bëgg ma ma sànni xeer wala. <laughs> <laughs> xoolal rek d'abord d'abord waaw. bu xeewalee dal na dal bu bu félicitation waree jib na jib su voilà. non xam ngeen xam ngeen boobu léegi gars yi ñi surtout taskatu xibaar yi da ngeen woon euh, opposition bi rase les murs. ngeen foog ne tiitaange la ak dañoo xëpp ak machin déedéet dañu bëggoon am quand même une petite élégance républicaine. bàyyi leen ñu wax gars ne non 100 jours kenn mënu cee. <laughs> natt nit loolu laa dégg dans les rues dans la presse en venant et cetera euh, mais généralement quand bu ñu la bàyyee cent jours ci lañ lay commencé nag wax war nga poser ay actes waaw mais surtout d'abord fu ñuy jëm loolu la lëndëm ci ñun xamuñu fu ñuy jëm c'est normal mm-hmm. on n'a pas une orientation claire on nous avait parlé d'un projet on dit qu'il est en confection donc fonctionnaire yaa ngi koy bind DPG amagul les PG amagul et cetera donc mënuñu projeté wu benn. Mhm. léegi li ñu xool mooy actes yi actes yi nag yu ci bëri nag ñu ngi leen di gërëm. parce que ñu ngi mhm. inauguré ay ah, affaires yu ñu si bàyyi. mais ci transparence <laughs> euh, na publier quand xamante ni mooy ay en tout cas. mais ma jox la exemple. waaw euh, ñu publier pêche mooy kii wu OFNAC. ah OFNAC publié a plus de deux ans OFNAC gis nañ ministre bi ci boppam sa successeur bi daal di publier maanaam ñi nga xamante ñooy battre pavillon Sénégal ñu xam ñan la chalutiers yi nga xam ne ñoo fi napp. loolu est-ce daa nga ko def ba nga nekkee ci ministère dama ne nga publier moom foofu gisuguma acte bu bees maa ngi xaar parce que foofu au moins xam naa ko ma acte bu bees nga jël euh, benn liste d'ailleurs il y avait une phrase bu ma bu ne am na ay en instruction yoo xam ne nekku ci. Mm-hmm. donc cette liste là n'était même pas de mon point de vue complète par rapport à cette. en tout cas prudence bi ñu jël pour publier ko. Mm -hmm. donc boo jëlee la liste d'un service nga publier ko bon qu'est-ce que ça nous parce que est-ce que changé na virgule ci daan wax man moo fay jógee dama ne woon le pavillon sénégalais est de 129 navires on a publié 132 navires lan la ñu changé. Mhm. bi ma fay jógee dama ne woon bi may yegg si y avait 196 navires bi ma fay jógee y avait 129. Mhm. loolu au moins leer na. tey bu ñu publié waatoon liste ñu ne non y a 196 ñu mën ma ñu mën man tuut baaraam wala wax ak man. mais ñi doon wax ni dañ koy yokk mhm. c'était la c'est la preuve par man ce truc là je suis content mhm. Mhm. yeneen yi ma doon wax yëpp liste bi tey da koy da koy firndeel et votre parti dans ah, bi ngeen du ni ngeen dundee defet parce que ak sa taxawaay yow Benno Bokk Yaakaar ngeen bokkoon mais le parti socialiste quand kenn déggu leen sax sur le ci débat wax loolu waaye xam naa danga may cuq rek <laughs> pour ma gën a pour ma gën a ma gën a xaabawul mais parti socialiste Euh, d'ailleurs là a ngi remercier toutes les commissions ñu ngi dem pour quand même. pour renouveler. non fàttaliku tuuti suñu. tanoor waaye foogoon naa ñu terminer parce que c'est c'est son anniversaire. cinquième euh, anniversaire de l'anniversaire de sa disparition. Mhm. le parti socialiste choc boobu c'est vrai que ba léegi. Euh, je dirais genre séisme la secousse yaa ngi fi ba léegi. Mhm. Mhm. pour être vrai parce que parti boobu la ñu xam man bi muy dugg ci politique mm-hmm. voilà 2004 laa dugg parti socialiste ils étaient ça faisait quatre ans qu'ils étaient dans l'opposition moo tax ñeen ni dama leen tooñ man leen attention man opposition laa jàngee politique de mm-hmm. du ci nguur nguur gi trois ans laa ci def xaw ma quatre ans yàgguma ci mm-hmm. malgré que nous sommes élus depuis bi ñu may yóbbu police gi nguur gi la woon de euh, donc parti socialiste euh, ñu ngi jëm ci mais ñu ngi ñu ngi y a des travaux scientifiques qui se font mm et loolu peut-être c'est une urgence parce que mhm. malheureusement contexte bi mhm. aujourd'hui nous presse également pour que rapidement ñu pare loolu xëy na euh, mettre suñu task force en place ba pare mhm. nag euh, gëm suñu bopp et jëmmal suñu ambition parce que ce parti yéen ñëpp loolu ngeen ñu naan xarit 40 ans yi da ngeen doon ne suffit mais après bu ñu nee li ngeen ne non parce que amul regret ci seen compagnonnage ak Macky Sall ah, day am lu baax am xëy na lu dese mais jàpp naa ne li ñu fi def en douze ans mhm. li baax ma ëpp fuuf par rapport ak li ñu ci mën a ŋàññ te ba léegi ci la fi bàyyi ci la di surfer après cent jours mhm. et je suis sûr que d'ici trois ans ci la ñuy jërëjëf merci beaucoup monsieur le maire Alioune Ndoye Chérif mi su ma ko toppee xam naa treize heures bu ñu ñi kii jaf xibaar yi moo nar a ñëw may leen ma journal borom kër gi de bu jógee nag moom mooy dem la rek <laughs> won na la bunt dama ko dama kii ba sonn nangu maa déglu il faut que ma jug taxaw ne ko Chérif baal ma <laughs> waxtu bi jot na merci beaucoup monsieur le maire ko rus dama a rus waaw ah, dafa correct moom macha allah nit la <laughs> nit ku xam ne amin ñun yëg fitna yitteeluñu amin yaa rabbal alamin mais nag dëgg aussi ku ci mm-hmm. ne mm-hmm. parce que ca la la yàlla di accompagner di la fekk mm-hmm. ba mhm. newul ci dëgg yàlla du la accompagner. réew ko tabax ci fitna. dëgg la jërëjëf merci beaucoup monsieur le maire Aliou Ndoye euh, muy maire euh, bu Dakar Plateau moom la doon dalal prétexte bi nag ku ne gis na ko muy déguerpissement yeeg coow la mu jur ñu am yaakaar rek ni gindeeku dina am et puis objectif yi